Doudou Sané Palmarin Sall troisième combat nommé de la waaw ñu waaw dañuy faral voilà léegi pour pour pour mu gën a yomb dañoo bëgg mbab bu tibbee na am na ñaari nit ñu ko gunge muy dox sécurité sécurité bi dañoo bëgg mbab bu ne kuy dox na ànd ak ñaari nit mbab bu ne may nañ la ñaari nit ñuy dox di waaw waaw Doudou Sané. ok donc dañ leen doon sécurité bi nee na kenn rek sax baax na. waaw du jàng. kon dañoo bëgg ngeen góorgóorlu ngeen góorgóorlu affaire yi jeex ci jàmmuwaay. dafa am téléphone bu wàcc léegi ku nga bëgg ku nga mooy indi ci téléphone bi. ngeen jàppale ñu rek parce que téléphone yu jàppoo lépp a ngi ci biir. Doudou Sané examen day sax. vraiment nga def ci gëm yàlla rek indi ko ci taabal bi merci beaucoup. téléphone bu ma la instant bu six la. ku nga bëgg rek mën nga mooy indi ci taabal bi ngeen jàppale borom. daanaka maama laa bi ndeysaan ñoo ngay lewaatu. wala boog jàppante nañ ci kaw sol na naa forcé xëcc na ko hey hey Sall Mama seen combat bi amul xaar de hey hey Sall na tànk ba Mama Lamine hey daal na Sall ne Sall waaw